bàyyi ma xel dégg nga الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
léegi ñaata minute ngay def 30 30.
léegi su ma génnee rek
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار خير الأصحاب الذين فتحوا القلوب والأبصار قبل أن يفتحوا المماليك والأمصار إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala delsiwaat nañ ci seen waxtaan asxaabu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njëkk ñu dugg ci waxtaan wi ak di leen présenté ki ñu leen indil ñu ngi ziyaare mbokk jullit yi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci waxtaan yi di ci jiital ñi jiite barab bi ak ñëpp ñi fi liggéeyee ñu leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala sàmm leen aar leen yokk leen ginnaaw loolu mbokk yi ki ñu leen indil tey mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ne allahumma ij'al lahu aaya tu'inuhu ala ma yanwi min alxayri yow yàlla de maa ngi lay ñaan waa ji yàlla na nga ko defal màndarga defal ko kiimtaan ba mu mun a jottali lii mu yéene jëm ci yiw waa ji keroog ba mu duggee ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ñaanal ñaan gu màgg gii ne yow yàlla yàll na nga ko defal màndarga goo xam ne dina ko mën a dimbali ba lii mu yéene ci mbaax mu mun ko mottali mën ko liggéey mbokk yi waa ji mooy kan mooy ki nga xam ne kaana yutimul jaa'i ku xiif ku duggoon këram ku ne bala nga fay génn suur ku mar ku duggoon këram ku ne bala nga fay génn màndi wa yutimu wa yu aminul xaayif kii ku tiit ku duggoon këram ku ne bala ngay génn nekk ci kóolute nekk ci sécurité waa ji wayu jiirul mustajiir da daan làq képp ku woote wallu da daan wuy ji képp ku woote wallu képp ku soxla ndimbal mu dimbali la mbokk yi ki mooy kan ki mooy boroom gént gi gan gént bu ñëwee ci kanam ñu wax leen gan gént la mbokk yi ki mooy tufayl ibnu amrin ad dawsi tufaylu ibnu amr waxtaane ko dana nekk lu jaadu ba jullit ñi mën a jële ci moom roy ci moom jàng ci moom ci ay melokaanam balaa muy dugg ci lislaam ak bi mu nekkee ci lislaam Tufayru sang la woon ca daw su gëmu dëkk kilifa la fa woon ku tabe la woon ku tedd la woon njiit la fa woon Tufaylu ci mbaaxam buntu këram daawul ubbu cinam du wàcc ci safara si su ndox mi jeex rek ñu ngi xambaat ku fëgg kër gi bunt bi du ubbu da ngay ñëw rek puus daal di dugg fu waay xiife bu ñëwee lekk fu waay mare bu ñëwee naan fu waay tumaranke bu ñëwee am fu mu wéttaliku waaye ci biir lii lépp Tufaylu ku xamoon ay wax la ku déggoon woyi arab yi la ku mënoon a way la ku mënoon a tëggi baat yi la defar ko ba bu ko waxee ñépp bég ci biir lii lépp Tufaylu benn bis tàggu nay mbokkam jëm màkka di ziyaare ji xërëm ya comme ñoom nañ ko daan defee ci waxtu wu nekk booba ca jamono yooyu kaaba ga ñetti téeméeri xërëm ak fukk ak ñett moo fa nekkoon moom Tufaylu tàggu nay mbokkam jëm ca xërëm yooyu di leen ziyaare ji mu tolloog waxtu wa nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mi ngi tàmbali di woote xëccoo bu rëy mi ngi dox ci diggante sangi qurays yéeféeri qurays ak yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ku nekk ngi bëgg a yokk sa mbooloo ku nekk ci ñoom mu ngi bëgg a am ndam ci moroomam waaye ci jamono yooyu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moom li doon ngànnaayam bu mu ngànnaayoo ci xeex boobu ci xare boobu mooy al imaan wal xaq yonent baa ngi ngànnaayoo ngëm gu dëgër gu koy won ne moom moo nekk ci dëgg ndax moom la yàlla yónni yonent baa ngi ànd ak ngëm gu dëgër goo xam ne xamal na ko ne mushrikuun yi ay bokkaalekat lañ te moom la yàlla yónni jox ko programme boo xam ne moo fi war a jële lii fi ne waaye yonent baa ngi ngànnaayoo dëgg moo tax ñaari ngànnaayoo ku ko ngànnaayoo jarul ngay tiit jarul ngay ragal te mooy dëgg ak ngëm ci jamono yooyu waa Màkka wër nañ ndomba Màkka ci biir ak biti képp ku sóobu biir Màkka dugg ci frontière bi ñu wër la di la xabaar lu xew Màkka loo fa nar a fekki mooy tey rek ni information bi tasee ci àddina bi ni ñuy tiitalee doomu aadama yi ci lislaam ni ñuy ragalloo nit ñi lislaam di leen moytandikuloo ba tax sax tey ay nit juddoo ci lislaam waaye ragal lislaam waxumalaak nag ña ca ña ca judduwul waxumalaak ña ko xamul bu fekkee ñi ci ñi ci juddu ñoo ko ragal ñoo koy moytu waxumalaak ñi nga xam ne ñoom judduñu ci xamuñu ko yéeféeri màkk wër nañ ndomba màkk biir ak biti di tas information yi mooy tëndiku leen kaaba ga am na ko fa nekk di woote ne yàlla ko yónni tufaynu tufaylu ibnu amrin dugg na ca xeex ba te préparé wu ko dugg na ca xeex ba te bàyyiwul xel ne dugg na ca xeex ba lu ko waral mooy sangi màkkaa ko wër magi màkkaa ko wër di ko tiital di ko wax ay wax yu amul yàq xelam wala fi nee nañ seytaane waxul dëgg waaye yàq na xalaat yàq na xel tiital ko ba mu tiit nee nañ ko am na benn waay bu nekk ca kaaba gay woote nee na yonent la ngalawaay boo fa demee tufaylu bul ko déglu bul ko jege ndax ñun tàqale na sunuy mbokk tas na kër yi tas na mbooloo yi tas na sëy yi tàqale na doom yi ak seeni baay bañ ma waxee lii ba pare nag yemuñ ci waaye dañ ma berndeel comme gan la ñu reyal ma lakkal ma wàjjal ma defaral ma ba mu nooy jox ma ma lekk ba suur nelaw ba xandoor mu ne mu neex yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bañ ma tiitale ma giñ ci sama borom ne waa ji yàlla bu ma ko gis waxuma laag nag ma jege ko waxuma laag nag may déglu ay waxam tiital nañ ma tiital nañ ma ba ma tiit ci liñ ma wax ci ay mbiram benn bis ma préparé nag dem ca Kaaba ga nag te foofu lañ ma wax nag foofu la nekk mu ne ba may dem li ma njëkk a def mooy tibb ci witeen wi fatt samay nopp ba lépp luy riir lépp luy kàddu duma ko dégg ngir ba ma dugg bu mu demee ci kaaba gi bu ma déglu waa ji li muy wax walla ma koy jege waaye xam ngeen ne mbokk yi bu fekkee waxante dëgg rekk a fi nekk witeen tuuti na ci téye kàddu yàlla subhaanahu wa taala witeen tuuti na ci téye kàddu yàlla ndax kàddu yàlla day lumière la day xotti frontières yi di bënn miir yi di bënn dënn yi di pénétrer ci biir xol yi di walangaan ci biir yaram loolu moo tax yéeféeri màkk xam nañ kàddu yàlla xam nañ Qur'an moo tax képp ku sóobu ci biir kaaba gi képp ku ne cëpp màkk ñu ne la moytul am na waa ji woote ne yonent la yàlla ko yónni mu ne ma dem ca kaaba ga ak sama nopp yu ñu fatt waaye ba ma duggee ci kaaba gi lakinni ma in daxaltu l masjida xatta wajadtuhu qaiman yusalli inda al kaaba salaatan gayra salatina nee na mu neex yàlla subhanahu wa taala ma dugg ci kaaba gi ma séen ko moom waa jooju ñu may wax muy julli julli gu nuróowul ak sunu julli ñun wa yataabadu ibadatan gayra ibadatina muy jaamu yàlla jaamu yàlla gu wuuteeg ñun sunu jaamu mu ne fa asarra ni man manzaruhu mu ne mu yéem ma lool gis-gis bi ma ko gis moo tax gis nga mbir suñ ko defee nuñ ko war a defee wax ji buñ ko waxee nuñ ko war a waxee jëf ji ñu jëfee ko num nuñ ko war a jëfee mu jeexital ca ña koy dégg ak ña koy gis tufaylu tey la ñëw màkk musul xam lislaam musu ko gis musu ko dégg xamul kuy yonent bi waaye nee na ba mu ne cëpp ci biir kaaba gi ma seen waa ji muy julli julli gu nuróowul ak sunu julli jaamu yàlla gu nuróowul ak sunu jaamu nee na loolu daal may yëngal loolu xippiloo samay bët mu ne ma daal di koy jege bi ma ko jegee ma yëg lu ma yëgul woon ci man ma daal di yedd sama bopp lan laa wax ma ne kayfa uiru aqli xëyri naka laa jëlee sama xel ma abal ko keneen ku dul man ñu wax ma rek ma gëm xam nga nit ñi tey looloo leen yàq benn waaye day dajeeg wax rek yow rek daal di wax rek nga gëm te alquran da ne woon wa in jaakum fasiqin bi nabain fa tabayyanu mais yow da ngay dajeeg nit mu wax la rek nga ni dëgg la wala nga xëy liir ci journaux yi ne dëgg la waaw amatul léegi càmbar amatul seet dégg gëm ba pare nag doo ci yem mais wër di wax di tas te looloo yàq dëkk bi looloo yàq nit ñi looloo tas kër yi looloo tas mbokk gi looloo tas sëy yi tufaylu jege na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko samitu maqalata qawmika fiik dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow waaye nag man loolu yitteelu ma ginnaaw ba ma gisee ci yow lu dal sama xel dama bëgg bu fekkee yàlla la yónni nga wax ma dégg ixwatal imaan tufayli ibnu amrin yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko suratal ixlaas wal falaq yenent bi jàngal ko qul huwa allahu ahad ak qul auzu bi rabbil falaq lan la wax moom tufaylu mu ne fa wallahi ma samitu qawlan axsana min qawlihi wala raaytu amran adala min amri yonent bi jàngal na ko qul huwa allahu surat al ixlaas qul a'uuzu bi rabbil falaq tufay lu yuux ne ko musuma dégg wax ju mel nii musuma gis mbir mu mel nii ci maandute mbokk yi ñun ñaata at ñuy déglu alquran ki yéefér la bokkaalekat tey jii la déglu alquran alquran bi soppi ko ñun ñuy déglu alquran ay ati at ñun ñu judd ci alquran mënuñoo changé nañ xoolaat suñu bopp nañ xoolaat suñu bopp ñu xool ñun ñooy ñan kii tey la ñëw ci diine yonent bi jàngal ko qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq waa ji daal di changé gis ngeen alquran day changé dund doomu aadama bu fekkee nit ki gëm na ko ñun ñu judd ci fekk suñuy mamaat di ci dund ñu koy jàng guddeeg bëccëg ñenn ñi ci ñun nekk ay xaaf ay xufaas ñi mokkal ay juse yu bare bare bare bari ñii miin ñii wàcc guddeeg bëccëg ñuy dégg ñuy déglu alquran te amul lu soppeeku ci ñun kii déglu ko tey daal di soppeeku mu ne dégg naa wax joo xam ne musuma dégg wax ju mel nii gis naa mbir moo xam ne moo gën a maandu mbir lépp mbir yépp ca jamono yooyu lan la def moom ba mu waxee wax ji ba pare mu ne basattu yadi wa shahidtu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mu ne dara laa def rek lu dul tàllal sama ñaari loxo lu dul tàllal naa sama loxo ndeyjoor bi ci yonent yàlla muhammad ma tudd baatu seede ya ne maa ngi seede di wóor di gëm di dëggal amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yàlla di seede ne muhammad mi ndaw la yàlla ko yónni mu ne wa daxaltu fil islaam ma daal di dugg ci islaam mbokk yi lu ñuy njëkk a jàng ci dund tufayl mooy keroog ba mu duggee ci lislaam lan la njëkk a def mu ne thumma aqamtu fi makka zamanan taallamtu fihi umuur alislaami wa xafiztu fihi ma tayassara lii min alqur'ani mu ne ba ma tubee li ma njëkk a def mooy dama sax ca dëkk ba ca makka lan laa fa doon def may jàng sama mbiru diine ma mokkal ci alquran lu baree baree bari waaw loolooy mbir mi mbir boo ko gëmee def lay jaral nga gëstu ko nga xam ko mu yitteel la mais tey ñaata jullit ñooy tuddawoo lislaam te xamuñ ci lislaam dara lu dul man jullit laa bu koy jullit day jàng diine islaam alquranul karim aaya bi ci njëkk a wàcc dana yonent bi jàngal iqra xoola tufaylu tey jii ba mu duggee ci diine ji lu mu lu mu njëkk a def mooy dama toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy gëstu sama diine mu ne ma jàng alquran mokkal ci lu baree bari la ma yàlla yombalaloon ma mokkal ko ba ma nammee dellu xoolal beneen responsabilité bi mu jël ba mu duggee ci lislaam mu ne fa lamma azamtu ala al awda ila qawmi ba ma nammee nag toog war a ñibbi dellu dëkk ba ma jóge woon ñëw naa ci yonent bi ne ko man kilifa laa ca dëkk ba ma dëkk su ma waxee ñu dégg su ma joxeñee ñu def su ma toogloo ñu toog su ma noppiloo ñu noppi dama bëgg nga yónni ma ma nekk ndaw loo xam ne maa la fay toogal waaye dama bëgg nga ñaanal ma yàlla mu jàppale ma ba sama dëkk fa ma jëm di leen waari yàlla dimbali ma ñëpp tuub gis nga responsabilité lii mooy lislaam lii mooy jullit ñi ñooy saxaaba yi mbokk yi nit ku nekk ca la nga nekk danga ci war a yëngu ñu xam la ci waaye di tuddoo lislaam te mosoo ko dundal mais di ko dundee looloo ñu tardeel tey dundee diine ji bañ a ko dundal lislaam bi du lu ñuy dundee mais lu ñuy dundal la loolu lañ jàng ci yonent bi loolu lañ jàng ci saxaaba yi loolu la ñu jàng ci képp ku baax ku mus a taxawal diine mooy da nga ko daan dundal mais mosoo ko din mosoo ko dundee mbokk yi tufayl yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla defal ko benn màndarga ci jëbi tufaylu génn jëm dëkkam jëbi leer bañ mel ne làmp mu ne ah sama borom màndarga bi nga ma defal day maa ngi lay ñaan nga toxal ko ndax soo ko toxalul ci sama jëbi dañ naan xërëm yee ma mbugal xam nga loolu tey mooy li am booy waxal yàlla ak yonent dara dal la dañ naan mag ñee ko alak ñamuy contre ñoo ko alak fekk fii kenn contre fi kenn dañuy jàngale alquran ak sunna dañuy leeral li fi yonent bi bàyyi woon ak saxaaba yeeg nit ñu baax ñi waaye nag fooy leerale am na ku bëggul ci am na ku nekk ca pegg ba bëggul ku leeral ndax dafa am ci lu mu bóof bu mbir mi leeree mu ñàkk ko looloo tax tufaylu ne yow yàlla yow sama borom mbir mii nekk ci sama jë soo ma ko mënee toxalal mbir mi daal di toxu ñëw ci gémmiñ gi suy wax mel ne benn làmp bu ñu taal ci biir gémmiñ gi tufaylu mbokk yi nee na cëpp ca dëkk ba mu bàyyee ko woon muy daws la mu njëkk a def mooy jublu ci baayam bi ko baayam séeni ak ay bagaasam muy daw di ñëw baay ji ñëw di ko teeru lu mu ko wax mooy baay du man ak yow baay ji ne ko lu xew mu ne ko bàyyi naa sa diine sóobu ci diine yàlla diine yonent yàlla muhammad baay ji ne ko doom loo nekk ci laa nekk mu ne ko sangu jil te ñëw tudd baatu seede yi du fay lim njëkk a def mooy dugal baayam ci diine jabar ji ne bëreet mu ne ko taxawal maa ngi yow sunu sëy tas na boo fekkente ne génnoo ci li nga nekk fekki siw ma ci li ma nekk man ak yow sëy doxatul sunu diggante jabar ji ne ko nijaay mu ne ko mu ne ko loo gëm la loo nekk ci loolu laa nekk loolu mooy diine loolu mooy lislaam du fay lu nekk ca dëkk ba di waaraate ak a jàngale ak a woote toogal fa yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam du fay lu nekk ca dëkk ba di waaraate waaye xol yi ne këng tëju du fay lu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat yóbbaale kilifa gu rëy gu màgg muy abu hurayra abdurrahman ibnu saxra dawsi du fay daal di koy yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen bokk na ci tufaylu liggéey yu rëy yi mu gën a def mooy ki nga xam ne mokkal na ci xadis yonent bi 5374 xadis muy abu horeira tufaylu moo ko dugal ci lislaam ci liggéey yi gën a rëy ci lislaam yi tufaylu def mooy dugal abu horeira ci ci lislaam mañotafanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ba ma nee tëll maag tufa maag abu hurayra ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ma ana waa daws ma ni ko xol yu ne këng ci kéeféer ay nopp yu tëju xol yi wow koŋ ci kéeféer ñuul kéeféer gu ñuul kukk moom laa fa bàyyi yow yonent tufay li waxee loolu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg jàpp daa di kàbbar julli ñaari rakk ba mu sëlmalee mu yëkkati yàlla ay loxoom abu hurayra nee na keroog tiit naa ndax nee naa waa xawma woy samay nit alku nañ ndax yonent baa ngi leen nar a ñaan ndeke yonent bi salaa salaam ñaanalu leen alkande waaye da leen di ñaanal yàlla dugal leen ci diine yonent bi lan la wax allahumma ahdi dawsan allahumma ahdi dawsan allahumma ahdi dawsan yow yàlla boroom asamaan ak suuf yow yàlla yal na nga jubal waa daws yow yàlla yal na nga jubal waa daws tufaylu daal di dellu mu ne ko irji ila qawmik dellul ci say nit boo demee nga woo leen waaye lewatal woote gi boo demee nga woo leen waaye nga lewetal woote gi boo demee nga woo leen waaye nga xam ni nga leen di woowee tufay lu dellu na ca daws muy woote ci lislaam mu sax fa di woote ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dem Medina xeex Badr xeex Uhud xeex Xandaq loolu lépp tufay laa nga ca daws di woote tufay lu jékki-jékki ba mu xamee ne dëkk bi yépp genn wàll gi wuy si nañ mu daal di buub mbooloo ma jëmmi leen Medine ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tufay lu keroog ba mu ne cëpp Medine indil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñetti fukki kër yu tuub dugg ci lislaam juróom ñetti fukk bunti kër yoo xam ne kër yooyu yépp boroom kër yaak seen njaboot ñoom ñépp dañoo dugg ci lislaam Tufaylu mbokk yi dundam jàng ko lu ñu amal importance la lu ñu amal njëriñ la gis ngeen bokk na ci liggéey yi màgg yi mu def ginnaaw dugal Abu Hurayra dugal na juróom-ñetti fukki kër ci lislaam ñépp tuub keroog ba leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séenee moom lan la wax moom Tufaylu mu ne fa surra bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashama lana ma almuslimina min ghanaimi xaybar keroog yonent dafa kontaan ci ñoom fekke wu ñu woon xaybar waaye yonent bi daf leen jox seen wàll waaye ba ñu ba leen yonent bi joxee seen wàll ba pare moom Tufaylu ibn Amr lan la wax yonent bi yonent ñun ñii ñëpp ñun ñi nga xam ne ñooy waa daws ñun juróom-ñett fukki kër juróom-ñett fukk kër ci buntu kër yii dañoo bëgg saa yooy xeexati nag ñu def ci sa wàllu ndeyjoor ñun ñooy ñun ñooy yor armée bi nga xam ne ñoom ñooy nekk ñun ñooy nekk ci sa wàllu ndeyjoor bul xalaat sa wàllu ndeyjoor def ñu ci pegg googu rek Tufayl ibnu Amr mbokk yi nii la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fatxu mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy yónni mu dem toji xërëm bi nga xam ne mooy Zilkafayni xërëm boobu nga xam ne waajo ñu doon wax Amr ibnu Xamaama moo ko defaroon Tufaylu dem lakk ko yonent bee ko jox ndigal mu dem lakki xërëm bi waaye Tufayl ibnu Amr ànd na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi génn àdduna keroog ba mu demee yonent bi yónni ko mu dem di lakki xërëm ba ba mu ñëwee nit ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp taxaw di ko xool dafa ne bu lakkee xërëm yi musiba dal ko ma nga naan yaazal kaffayni lastu min ubadika milaaduna aqdamu min milaadika inni xasawtu naara fi fuaadika yow xërëm bi man bokkuma ci ñi lay jaamu yow xërëm bi sama judd moo jiitu sa juddu yow xërëm bi man mii maay ki nga xam ne maa jël safara di ko dugal tey ci sa biir gémmiñ Tufaylu lakk xërëm bi ba xërëm bi ñuul ko ko daal di daanu ñépp xam ne nekk li xërëm la du dëgg ñépp daal di tuub daal di topp Tufaylu ibnu Amr mbokk Tufaylu ibnu Amr ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi génn àdduna mu ànd ak Abu Bakrun Saddiq radiyallahu anhu yàlla may ko mu fekkee jamono bi nga xam ne yonent bi saa sallam génn àdduna Abubakar toog am ñu murtat génn ci lislaam Tufaylu fekke xeer boo xeex boobu nga xam ne moom mooy Yamaama ba mu takkee xare bi ànd ak doomam bu tudd Amr ci yoon wa ñuy dem eggaguñu ca xare ba Tufaylu daal di gént gént gu yéeme moo taxoon sànq man leen boroom gént ga jamono bi ñuy firee gént gi nag jot na gént gaa ngi nii dafay gént mu ne raaytu anna raasi qad xuliqa gént naa gis sama bopp bi ñu wat ko wa anna taa'iran xaraja min fami picc génn ci sama gémmiñ wa anna imraatan adxalat nii fi batniha benn jigéen daan may dugal ci biiram mu ne waan na ibni amran jaala yatlubu nii xasiisan lakinahu xiila bayni wa baynahu mu ne sama doom amr di ma wër waaye mënumaa gis ndax dañoo dox sama digganteeg moom bi mu géntee gént gi mu daal di koy nettali ñi mu àndaloon ñooñu ne ko ah loolu de dara nekk ci lu baax kese la fa qaalu xayran ñu ne ko yiw kese la yiw la dara nekk ci mu ne leen bu ngeen ma ko firul ma firil ko sama bopp déglu leen ma firi leen gént gi lan la mu ne leen amma ana wallahi qad awwaltuha dinaa leen ko firil tey sama bopp bi ngeen gis ma ni leen dañ ko wat xam ngeen luy firi gi ñu ne ko ah mu ne sama bopp bi lañ nar a dagg dama nar a dee ci xeex bi ci xeex bi sama bopp bi lañ nar a dagg mu ne picc mi ngeen gis muy génn ci sama gémmiñ du lenn lu dul samay ruu ndax ku ñu dagg sa bopp sa ruu génn mu ne sama ruu moo nar a génn ci sama gémmiñ mu ne jigéen ji ngeen gis mu may dugal ci biiram jigéen jooju mooy bàmmeel bàmmeel moo ma nar a dugal ci biiram sama doom nag di ma wër gisuma sama doom dafa ma bëggoon fekk si dee comme ni ma deewee waaye yàlla mayu ko loolu waaye dina ko ami beneen yoon ndeysaan gént gi mu gént moom Tufayl ibnu Amr moom la ko yàlla dëggalal mu daal di faatu ci xeex bi xeex bi nga xam ne moom mooy Yamaama fii la Tufayl ibnu Amr génne àdduna bàyyi doomam Amr ci ginnaawam mu ñàkk loxoom kon Tufayl ñàkk na boppam ak loxo doomam ndax doom ji dañoo dagg loxo bi looloo tax ci jamono Omar ibnul Xataab Omar mës na invité gan yi gan yi ñëw doom ji daal di ci bokk bi lekk jotee doom ji daal di jóg ndax loxo ndeyjoor ba lañ daggoon Omar ne ko lu xew xanaa sa loxo bi moo tax nga am kersa toog lekk ak nit ñi mu ne ko waaw Omar daal di ne ko sa loxo bi billaahi wallahi boo ko jàmbul ci lekk bi duma lekk-lekk bi xanaa xamoo fii ci mbooloo mi toog yow dong yaay kenn ku fi nekk koo xam ne genn wàlla ma ngi aljanna ndax loxo ba ñu dagg ma nga aljanna kon nag loxo boobu loxo bu ñu dagg ñu ngi ko dagg ca xeex ca yoonu yàlla genn wàll nga nekk aljanna kon loxo boobu day wax dëgg yàlla jar naa jàmb ci lekk doomu aadama lekk ci mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ki mooy tufayli ibnu amrin radiyallahu anhu wa ardaahu ki mu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci li ñuy jëlee ci dundam moom tufayl ku baax la woon balaa muy nekk jullit ak bu mu nekkee jullit balaa muy nekk jullit ku tabe la woon ndax wax naa leen cin daawul wàcc ci safara këram ñaareel biñ kiy ciy jële mooy jàmbaar la woon ndax gis ngeen def na ñetti mbir mu dugal Abu Hurayra ci diine moom moo lakk xërëm ba ci xare la faatu kon jàmbaar la woon ñeenteel liñ ciy jële ku yenn responsabilité la ndax ba mu tuubee dellu na dëkkam daal di waar dëkk bi ba tuub loo juróom-ñetti fukki kër dugal leen ci lislaam kon kii mooy tufaylu yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp ñu ngi ziyaare mbokk yi di ñaanal ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. neta net net alhamdulillah jërëjëf